mbay Samb bu Thiès 24 ak Laas xanaa nga may nu rek ñu nuyu ba noppi nuyu itam auditeur ak auditrice ak tam ñëpp ñi nga xam ñoo ngi lay suivre di tam commencé baalu àq ci weeru koor yi nga xam ne ci lañ dugg ñun nag ñoo ngi baal àq ñëpp di ñaan tam boroom mu may nu kooru jàmm ak lépp luñ ci def ci lu baax suñu borom fulal nu ko di ñantam élection yi ñu jëm suñu boroom jàll ko ci ak jàmm et que le meilleur ñun nag commune Koul ni ko waxee rek ay militants PDS lañu depuis douze deux mille douze tam élection yi fi jaar ñoo ko gagné ren nag deux mille vingt quatre bii. comme 2029 suñ candidat Karim Wade bokkul nit nag boo jëmee ay élection ki nga jàpp ne mooy sa mbër bokkul ñun commune Koul jàpp ne kon tam il faut que moom ñu tànn mbër moo nga xam ne moom la àndal ci présidence présidentielle yi bi mu ko defee tam woote na assemblée général ñëpp ñëw bi ñëpp ñëwee tam ñu prononcé wu ñu ñun daal Bassirou Diomaye fay lan bëgg ñu allié ak moom ci élection présidentielle yi jàpp naa ni bu dee plus de cinquante intervenants ñaar rek ñoo waxoon benn parti muy parti pur ñu ci des ñëpp Bassirou Diomaye fay en tant que nag bokk ci parti démocratie sénégalais je crois loolu mooy démocratie nga woo la base toog seetaan leen ñu prononcé wu yow doo mën dul plié wu ci kon daal élection présidentielle ñun waa Koul commune Koul Modou Fall maire bi jiite ko. ci ndigalu militants yi à daa daanaka à quatre-vingt-dix-huit pour cent nee nañu Bassirou Diomaye Faye la ni jàppale te tam loolu ab choix boo nga xam ne bu nu xaw a yàkkamtoon la ndax nag pression bi sori woon na lool métti woon na lool ci ñun ndax nag ay bu jotee bu des bu desee cinq jours à peu près foo jëm loolu day démobiliser ay militants kon daal incha allah rabbi on va campagne pour le ba Bassirou Diomaye fay ah de toute façon nag àdduna day toll foo nga xam ne kenn ku nekk moom il faut apprendre à prendre tes propres responsabilités man noonu la ma bindee parce que ab parti bu toog ba à cinq jours di jeexi jaaxa ñu naa la réflexion continue man moom jàpp naa ni ça devient catastrophique pour le parti parce que parti dafa war a planifier li war def ci élection yu nekk jàpp naa ne élection yi mu sànni se prépare pas en un mois mais ay année la ko préparé kon war nga teg schéma boo nga xam ni bu lii xewee lii lay def bu lii xewee lii lay def ñun nag suñ tergiversation wax dëgg yàlla PDS daa bëri 2019 on nous avait presque fait la même chose ñu dem ba ci biir ñu naal man ñu naa daal man génn wateel kii bàyyi ñaari ñi daal bu neex wateel mais ñenn ñi danoo dem ba découragé ba voté wuñu mais man sama culture boycott élection moom bokku ci ndax nag soo ko defee ëllëg di nga bëgg a jotaat say militant mu jafe la lool te comme nag ñun danoo am base ñun danoo am base ñun ñun waa Koul danoo yor base fidel ju gore lool gën ma gën noo gore kon nag du ñu sàggan mukk base boobu ñu leen di wan loo nga xam ne ëllëg dañu ci xeeb kon loolu moom jàpp naa ne wërta am benn problème ñun ak parti bi soo ko amee daal ñoom ñoo ko wut mais ñu on on naa toujours assumé nos positions et on positions yi danu koy wax à haute et intelligible voix parce que nag àdduna képp ku mënta wax nag li nga li xalaat moom jàpp naa ni ne ko un homme libre te man nag je un homme libre un homme boo nga xam ni qui a lutté pour mettre en place une base extrêmement solide loolu nag du ma ko yàq te man déglu ma ca kaw base bi laay déglu c'est ça la démocratie ca kaw ñoo war a déglu base yi mais ca kaw naa basé xaar leen te te nag li ma jàpp ma wax ko te ne au sommet ils sont déconnectés de la réalité loolu moom wax naa ko budul tey du ñaar li ñu dal ñëpp c'est parce que ñi coaché Karim Wade ne lui disent pas la vérité man nag bokkoo ci ñooñu su may ànd ak yow daal suñ mënta waxante lii defar je prends mes responsabilités te loolu nag je l'ai fait sous la dictée de la base et on l'assume 2014 maa ngi ci sama deuxième mandat te 2014 ba nee baata campagne on avait un benn clando leen yoran sans aucun moyen kon mais loolu nit ñi am na loon gis ñun ba jàppale nu on a rencontré tout sortes de mais nit ñi day mel ni tey la ñu gën a bëgg bi ni bi nu jógul woon fi mu nekk am na koo ñëw ni mais vous êtes une demande sociale dans la commune jógal boo jógal rek monsieur ba am te loolu élément Pastef moo ma ko wax. mais man nag je suis un boo nga xam c'est le Sénégal qui m'intéresse au-delà du PDS non c'est le Sénégal qui m'intéresse à chaque fois qu'il faut prendre position man je prends des positions et j'assumerai toutes les conséquences que cela puisse engendrer parce que àdduna loolu war a demee li nga war def daal ma def ko le partie jàpp naa ne xamul les enjeux réellement qui se passe actuellement dans le pays bu sàgganee ba def un mauvais choix jàppal ne PDS moom day dee il faut que ñu waxante ko ah te bëgg na mu dee ah. ñun moo tax lancé nañ alerte bu dul benn du ñaar mais nag soo lancé alerte ñi ngay waxal tax gumba mel ni ñoom danoo xaw a sax vraiment bëgg saborder parti bi man loolay wax man man je me le refuse parce que nag nit du jii dara ba mu sax muy bëgg a dee nga yor ak arrosoir war ko war ko mën a arrosé ngay seetaan loolu c'est de la parti te man nag je ne suis pas vraiment dans cette dynamique je suis là daal pour sauver la PDS pour sauver le PDS nag ñun ñëpp ñu xam ni suñ base moo war a dicter le comportement et non pas donc des gens qui sont là-bas et qui n'ont aucune base je l'ai dit toujours ñun ñi ni coaché <laughs> ils n'ont ils n'ont pas de base nit nag bu amul base yow nga am vraiment yow nga nekk quelqu'un de très lourd qui pèse lourd mais est-ce que di nga nangu ñooñu ñu lay dicter yow nga xam ni ça ne repose sur aucun critère objectif non loolu baaxul c'est pas bon allah on va écraser à Koul moom on va président Diomaye ne kontaan xam ne Koul moom jarul daal muy am ñaari xel xam nga ñoo ko daan gagné toutes les élections laa wax depuis 2014 bi yoon on va écraser loolu moom na ko na ko jàpp ñun nag on nous sommes des hommes indépendant li ma ko waxee rek man ñëpp laa yemale ku may àndal daal dëgg gi moom bu jotee alors parce que nag maa leen mag du seen morom ñoom ñëpp maa leen mag du ma seen morom maa leen ëpp background man loolaa jàpp. kon nag lu mel noonu koo jàppal tam il faut mu xam sa gëdd ah. man moom loolu moom je ne me laisse pas donc piétiner loolu daal moom yaroo naa lool nag baax naa lool et je me sacrifie pour tout le monde je dis man mais nag ma dignité ne se négocie pas